mbokk yi bu ngeen bëggee ay xibaar yu wér te wóor visité leen suñu site internet asalaami point net wala ngeen visité suñu chaîne YouTube asalaami TV mën ngeen ci abonné sax su ngeen bësee ci bouton bu xonq bi bu leen fàttewaale bësaale cloche bi ngir bépp xibaar boo xam ne dugal nañ ko ngeen mën di ko am ci saase moo xam ay reportage la ay émission ay documentaire yu am solo lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci assalaami ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte